bind ca jigéen fekk ki njëkk a bind góor la woon muy aadama mu bind jigéen rocc ak faar ci jëmmi góor aadama euh, defar ci jigéen muy muy xawa ci ñoom ñaar la génnee ay góor yu baree bari ak jigéen yu baree bari yoo xam ne ci jamono jii ñu ngi leen di lim ci ay milliards yi ay milliards milliards nit euh, yu dund ci jëmmi jamono euh, te ñëpp jóge ci kenn nit loolu day wane kàttan goog sunu boroom goog ki def loolu ku koy ku ko xam war nga ko ragal mu ne na ngeen ragal yàlla mi nga xam ne ci moom ngeen di laajante àq kenn ku nekk àq ju la joo am ci sa moroom rek yàlla moo la jox àq jooje àqi waajur àqi way dencante àqi doom àqi dëkkandoo àqi àqi mbokk àqi sëriñ àqi taalibi àqi ku mën a doon rek àqi jullit àqi yi nga xam yépp ku ci nekk am ci sa moroom sa moroom di la ko jox yàlla moo ko doxal ci moo moo la ko jox di digal sa moroom mu sàmmoonte ko yowit mu am lu la war lu mu lu mu la kooku it am àq joo war a sàmm ñépp nag yàlla tiim leen di leen fuglu di xool ba xam kenn ku nekk nu muy def ci sàmm àq yooyu kon nit ki bu xamee loolu it dan mën na ko yokk ak ragal yàlla ak it xam na ne yàlla mi ko tiim inna laaha kaana aleykum raqiba yàlla mi ngi tiim nit ki maanaam nit yàllaa ngi yàlla gën a jege nit ki boppam li ki xalaat ci xelam ko sax xam na ko li yàlla xam ci jëmmi nit ki man ko ci moom nit ki xamu ko ci boppam mënu ko ci boppam kon yàlla gën a jege nit boppam wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid kon jege gi yàlla jege nit di xam di gis lépp li muy def di dégg lépp li muy wax di xam lépp lu muy def te lu ci nekk mu di ko du ca sàggan du ca bàyyi dara mu rëcc lépp dana ko da koy bind da koy xam ba noppi bindlu ko bu ëllëgee ñu fay ko nit ki lu mu ko ca jégalut ci lu ñu war ci lu ñuy toppee loolu lépp bàyyi xel ci loolu kon mën naa taxa ragal yàlla bokk na ci liy taxa mën gën a ragal yàlla di fàttaliku faatu ak mbiri bàmmeel ak ya ca kanam yépp nga xam ne nit xam ne ak dundam lu mu yàgg-yàgg bis dana ñëw suñu boroom yabal malakul mawti mu ñëw jël si ak ruuxam euh, yóbbu ko ca sunu boroom ba ko bindoon indi ko ci kaw suuf te doon ko digal di ko tere war ko mu tax war a taxaw ci kanamam nag mu xisaab ko ca ndigal ya ak ca tere ya fab ak ruuxam yóbbu mu teqalikoo jëm jëmmi yaramam lay yéeg asamaan lii des ci kaw suuf euh, ñu war a jekk bi jëmmi jamono loolu ruugi war a dellusiwaat ci jëmmi yaram yi ginaa bu ko tabaxaate mu fàttaliku kon teqalikoo googu naraam ci diggante ruugi ak yaram ñu ko tudde faatu te su boobaa am na lu koy jiitu ñu koy wax sukuraat te muy waajtaayu faatu rek nga xam ne nit ki sunu boroom day yokk ay yëgam lépp lu ko umpoon da ciy tàmbalee teg bëtam tàmbalee teg bëtam ca la ca kanamam lañ ko doon dig tax te mu waroon ko mu doon ko gëm te mosu koo gis bu fekkee jullit la woon mu tàmbalee teg bëtam ca loola ci biir waajtaayu rek te deme bo bu tàmbalee di waaj rek lay daal tàmbalee gis la ca kanamam tàmbalee gisit li ci ginnaawam ak dundam lim def ci dundam ay jëfam ñu tàmbali ko di ko gaaral ay pas-pasam li mu façon xolam la ca di ay rëcc rëcc ak i njuumte ak i jafe-jafe ak i jubadee ki bokkaaleeg yooyu yëpp mu tàmbali koo gis gis ñaawtee fi jëfam gis rafet-rafet ya loolu lépp di ay jafe-jafe yoo xam ne yu mu jànkonteel la wa jaat sakrat mawti bil xaq dalika ma kunta minhu taxiit kon loolu taxawaay boobu itam di ko fàttaliku bokk na ci liy a ragal yàlla nit ki itam bu demee ci bàmmeelam ñu gas ko suul mu tàmbalee jànkonteeg ay ay ay jeexiti jëfam su boobaa te xamagut nu lu ko fay teeru ndax nit ki li fekk ak ruuxam teqali ko gut ak yaramam waragut a am ak wóolu ci mujjam ndax waxtu yi faatu seytaan day dikk taxawu ko temm fas yéene du yóbbaale pas-pas fas yéene yàq mboolem ay ay jëfam euh, moo tax sëriñ bi di wax ne bu leen wóolu pexem seytaane li fekk seen ruu génnul seen yaram ba ba tàqali ko moom ba noppi laa tamunoo makaida cheytaani qabla firaaqi ruuxi lil abdaani li annahu inda mamatiyaati shaxsan li kay yaxramahu taaxaati kon foofu itam taxaay bu xat boobu itam nit ki di ko fàttaliku fàttaliku it la ca ginnaaw faat nag xam dañuy wax ne sëriñ bi day wax ne faatoo gën a metti lépp lu ko jiitu waaye lépp lu ñëw ginnaaw faatu nag moo gën a metti faatu ci bopp moom loolu it ni di ko bàyyi xel di ko fàttaliku fu mu toll mën na ko taxaragal yàlla moo tax sëriñ bi di wax ne wa min nafsa bi zikril mawti wa zikri ma minhu amaama yaati min maradil mawti wa sakratin lahu wal qabri wal xashri wa raaqib hawlahu kon di xalaat mbir yawmal qiyaam dekki ga ak dajaloo ga ñëppi dajaloo ci benn barab ci benn pàkk képp ku yàlla mas bind ci ay nit ak i jinne euh, daje ci benn barab tancaloo mel nañu juddoo woon yàlla di atte ñëpp nara atte ñëpp ñu taxaw di ko nekk mu yàgg lool du jub du ci ñoom ba ñuy sàkku sax ku ku leen tinu dem sàkku mu mu àtte leen ak la cay topp lépp nag ci jël téere jëf yaak jéggi siraat ak euh, xisaab ak ya aji ca yooyu yëpp daal di ay mbir yu ay xeexo yu mag a mag yu ne ci kanam nit te mënu ca munu ta ñàkk mu yàgg ca tam bis bi mi ngi dox jëm ca yooyu yëpp bokk na ci lii war a tax ragal yàlla kon nii daal lenn la ci ay tomb yoo xam ne mën naa dimbale nit ki ci ragal yàlla gi nga xam ne moo tax ñu farataal koor kon ñu ngi tënk fii kàddu gi di ñaan suñu borom boole ñu ci waragal yàlla ñi allahumma ij'alna min muttaqina allazina tataqabbalu minhum wala taj'alna min allazina dalla sa'yuhum fi lxayaati dunya wa hum yaxsibuuna annahum yuhsinuuna sun'a yàlla na yàlla nangu ñaan gi ci barke Cheikh Xadim radiyallahu anhu wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa ummatihi wa sallama tasliman kasira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 ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu la ilaha illallah ashhadu anna رسول الله أشهد أن محمد رسول